fanweeri association yu yëngu ci wàllum économie informelle ñoom ñëpp nag ñoo daal di bokk ci bile plateforme seen mbëbët nag mooy nekkal fi ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci économie informelle bi ñu daal leen layal ci wetu autorité yi waaye itam ca partenaires yi. afin de porter leur plaidoyer. ngir mën a jàllale seen plaidoyer yi dañoo war a amal dialogue ci diggante ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ak marchand ambulant yi. fexe itam ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur informel ñu am li ñuy wax autonomisation autorité yi jàppale na ñu am ay sites de recasement gannaaw bi ñu leen jëlee bërëb yi nga xam ne foofu lañ doon liggéeyee. pour certains travailleurs de l'économie informelle déguerpis de leur lieu de travail. ci bile lancement nag ñu daal woo autorité yi ñu bàyyi lépp li nga xamante ne moom mooy déguerpissement te nag ñu bàyyi marchand ambulant yi ñu liggéey seen liggéey ni mu waxee. lu may lan lay créer ay lan lay créer ay chômage lan lay créer xale yi di jël gaal gi di dem ci géej gi parce que frustration moo leen yóbbu ñuy bàyyi seen liggéey di jël gaal di dem ci géej loolu yëpp frustration déguerpissement parce que tey mënoo di korkor yi ba créer seen liggéeyu bopp ñëw ñu yàq ko dàqale fi nga nekk boo amuloo loo def mënoo toog di jàkkaarloog sa njaboot wala sa yaay di leen xool donc il faut nga wuti loo def ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne mën na ko jur. waaye nag daal di na xam ne ni que bu ñu toogee ak nguur gi mën nañ rek proposer ay solution ngir rek xeex li di occupation anarchique bi. ñu ngi koy tàllal suñu loxo pour mu ñëw ñu toog ak ñoom waxtaan trouver ay solution donc problème marchand ambulant yi parce que am na solution nañ toog ak ñoom parce que. tey jii mënoo fee wax ak benn organisation bu ëpp doole Passy donc nañ ñëw ñu toog ñu waxtaan. lu jëm si wàllum dund gu cher gi bile plateforme des associations du secteur informel daal di rek woo autorité yi ñu daal di rek bàyyi li nga xamante ne moom la autorité yi fi jógee doon def maanaam ñu toog rek daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs concernés yi ngi rek mën a faj bile jafe-jafe.